li ma gëm maay conviction profonde mhm. mooy que du ñu organiser élection d'ici le deux te duñ ko organiser beneen date looy wax ni duñ ko organiser beneen date c'est ma conviction profonde ma wax la fan laa expliqué ma ne la duñ ko organiser pas conviction del crainte géy géy du crainte loolu laa gëm ne duñ ko organiser duñ ko organiser d'ici le deux te beneen date aussi duñ ko organiser ça veut dire la stratégie comme avait fait Gbagbo en Côte d'Ivoire ou bien de. ki euh, nekkoon Congo nu mu tuddati encore. Mm. Kabila coup d'état dama non non Gbagbo da doon yokk am mandat pendant ah. cinq ans. en contournant modifiant la loi. pendant cinq ans de 2005 à 2010 mi ngi nekk président di yokk Kabila aussi def na ko xam nga classe politique bu egsi au pouvoir ce premier réflexe mooy nu may def ba conserver le pouvoir. Mm-hmm. maintenant nag dans cette recherche de conservation du pouvoir deux options moo si am benn bi mooy dama koy def en suivant les principes démocratiques et en respectant l'état de droit ou bien ma jaar foo xam ne c'est un chemin antidémocratique ñii bañ egsi si nguur gi ba tey depuis 2012 ñoom amul benn élection bu démocratique buñ mos a organiser benn ma jox la ay firnde législative lañ génn d'abord lan mooy élection démocratique xam nga démocratie c'est l'égale participation des citoyens au débat politique mais aussi à la décision politique ban moment mooy décision politique dans une démocratie mooy bu élection amee mhm. te élection fu ñu koy nattee son caractère démocratique mooy lim bi bokk ci élection bi plus ñuy bokk si élection bi gën di bëri plus ñu ne élection bi démocratique la moo tax dans les pays de démocratie bu taux d'abstention bi élevé ñu parler de crise démocratique parce que lim bi bu ëpp bokk si élection yi moom moo lay jox légitimité pour nga mën a gouverner ñun nag Sénégal dañu jóge si une démocratie représentative ay une démocratie censitaire. sans. censitaire. sans critère. censitaire. une démocratie censitaire. doo bi ñu gën ko comprendre démocratie sans ITR ITR mooy démocratie boo xam ne ñay fal représentant représentants du peuple lim bu néew la ñuy toll te dañ leen di tànn loolu la ñuy wax démocratie sans ITR mooy une une élection au suffrage sans ITR foofu lañ toll foofu lañ toll ma jox la ay firnde ñi ngi génn ci élection législative en juillet 2022 3 millions 750 mille sénégalais bokkuñu ci élection yi sur un fichier électoral de 7 millions loolu muy indi lim bu néew moo fal député yii une minorité a élu les représentants du peuple donc nekkatuñ dans une élection démocratique voilà un taux d'abstention de pour cent dans un pays démocratique ce serait le branle-bas